waaw ñu ngi lay fay. Euh, ñu bàyyi la nga présenté wu bi. waaw kii bu nekk ci kayit bi nag moom mi ngi mi ngi nekk Galaye Ba. Mhm. waaye sëriñ Ba. Mhm. moom lañ ma xamee depuis xale ba ba mhm. mu nekkee mag. ñu fekk la nga tëdd euh, lan moo lay metti ak kañ nga bi ma bi ma tëdd ak léegi de wa war naa mat fukki at war naa mat fukki at. war naa mat fukki at. ci kaw waaye ñetti at yi daal. laa am jafe-jafe yi. am at yi la gën a metti waaw ñetti at yi daal la gën a metti hmm. waaw ci li ma tëral nii ma xam ne mënuma dara. Hmm. dañ may yëkkatee ko tëral rek. Hmm. waaw. lañ la wax exactement ne moom moom moo man daal li may dégg daal ci ci nit ñi. ndax man dawma hôpital dawma fenn. waaye li may dégg ci nit ñi. ñii naan ay ay ay nerf ak. wax ju ne daal wax nañ ko. wax ne daal wax nañ ko. nerf sciatique maanaam de mënu man mënu taxaw. fi nga tëdd nii mënoo jëm. mënu ma dara dañ ma yëkkatee ka tëral. dañ ma dara dara mënu ma. ñetti at. waaw déedéet mhm. eh, ñaari at rek. depuis ñaari at waaw oui depuis ñaari at mhm. ñaari at yi sax matul. Mhm. waaw. léegi ñi nga xam ne ñoo lay seetaan di la bàyyi xel. di tëdd te soxla ndimbal. te sa loxo jotul sa ginnaaw. tey ban message nga leen di lancé pour ñu mën laa jàppale ci ndimbal bi. lancer message ñu ñu jàpp na teel rek tax waaw ndax sama loxo jot sama ginnaaw waaw te it daanaka daal doy na waar daal doy na waar te lii ma gis nii daal xam naa ne bu ñu ma jàppalewul ci yàlla rek tax xam naa ne moom moom ci faatu laa jëm maa ngi sàkku daal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam daal booy defal yàlla yi daal jàppale ma. Mhm. te yàlla rek tax. bay defal yàlla yi jàppale waaw ñi nga xam ne dañuy dimbale rek te yàlla rek tax. Mhm. jàppale ma te yàlla rek tax. ba génn ma ci situation yi. Mhm. waaw. incha allah wallaahi incha allah. loolu nag moom sàkku naa ko. naa ko ci kàttanu yàlla. ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci barkeb sëñ Xaadim Rasuul. ci barkeb El Hadj Fallou Mbacke sama incha allah jërëjëf ngi noonu mbokk yi ñoo ko déggandoo tungu ne du teew léegi ñi bëggoon xam tey naka la feebar bi dikkee yow ba ni mu la tëralee feebar bi daal ni mu dikkee maanaam Touba laa nekkoon Touba ma nekkee Touba mhm. maanaam damaa nekkoon ci benn société gardiennage société di monter. ñu mhm. may fay chaque weer cinquante mille. Mhm. may jox sama njaboot. Mhm. benn jour daal. daa jékki-jékki taxaw rek. daanu. taxaw rek daanu. daan suuf. est-ce que. waaw. ma jóg daanuwaat. ci lañ wax ne ma wàccal ma daal di wàcc. ci lañ ma ci lañ ma jël daf ma ci taxi yóbbu ma kër ga. Mm-hmm. foofu la nekk sama soxna daal. waaw moo ma daan jàppale ci ay qualité. waaw di ma forateeg di ma def lu ne. Mm-hmm. waaw su ko sax bàyyi liggéey bi. est-ce que waaw fa laa jaaree bàyyi liggéey ba. ci mm-hmm. di ma forote rek. di ma forote. noonu daal la ma jàppoo. di ma jàppale moom it jàmbaar la. waaw di ma jàppale ci ay kii. ba fi ma toll nii. macha allah waaw d'accord euh, mbokk yi mi ngi noonu moom mooy yëkkati kàddu ci làmmiñu boppam wax li ko dal ni mu ko dalee ak fa mu ko dalee ba léegi mi ngi tëdd soxla na ko ko jàppale euh, te yàlla rek tax jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel mi ngi noonu mbokk yi ñu déggandoo lépp moom mi nga xam ne moo ko wax ci làmmiñu boppam jërë ngeen jëf. jërëjëf Moustapha euh, avant tout dañuy nuyu waa kër gi ñu fi fekk yëpp. Euh, di nuyu suñu frère bi nga xam ne euh, yàlla dafa def ne moom la tawat gi dal lu tolloog ci fukki at mm-hmm. euh, tey jii mën naa ne kàddu yi du gudd parce que moom mi nga xam ne moom la yàlla teg nattu bi yëkkati na kàddu yi nga xam ne war na ko yëkkati mm-hmm. mais ñun ci beneen anam rek la ñu mën a waxee mm-hmm. mooy ñi nga xam ne yàgg nañu ànd ak Thiès solidarité di ñu topp di gis kaa yi nga xam ne dañ koy dugal ñu ci ànd ak ñun ba mu saafarawu ñooñu la ñuy tàllalaat loxo ñu ngi ñuy gis que ne tey jii ci solidarité dafa am cas boo xam ni dafa am solo te dañ ko bëgg a taxawu jàppale ko fii ci Thiès ci quartier Daaru Salaam kon nag suñu sañoon fi ngeen daan jaar ak ñun muy waa Thiès muy waa Sénégal muy diaspora bi muy fondation yi nga xam ne dañ ñuy suivre muy autorité politique yi nga xam ne dañ ñuy muy personne ressource yi nga xam ne heure bu Thiès solidarité di dugalee cas ñu jël seen alal di ko ci def kon ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen i wax ne leen ne cas bii day cas boo xam ni kii dañ ko war a jël yóbbu ko hôpital suñ ko yóbbee hôpital nag yóbbu boobu dafa am lu mu laaj dafa am lu mu laaj ndax yóbbu bi euh, bu demee hôpital tey am na ay bilan yoo xamante ni Moustapha da ko war a def am na ay scanner ak yeneen ak yeneen ak yeneen da ko war a def ndax yaakaar naa ku tëdd fukki at yoo xamante ni yàlla dafa def nga tawat jógoo fil ci lal bi nga tëdd kooku su demee hôpital laaj na ñu saytu ko ci anam bépp kon nag ci loolu euh, ñëpp ñi nga xam ne dañ leen di euh, mën a jot euh, képp koo xamante ni bëgg na jot moom mi malade bi tëdd mën na woote ci 76 206 46 39 76 206 46 39 wala nga woote ci numéro Thiès Solidarité muy 78 154 18 18 78 cent 154 18 18 wala nga jël ci numéro malade bi moom laa dugal léegi euh, képp koo xamante nii rek wax dëgg yàlla mën nga woote ci numéro yooyu euh, mën nga ko jotal moom boppam téléphone wala nga wax ak ay mbokkam yi nga xam ne jege nañ ko ñun li ñu yittewoo rek mooy ku ko mën a jël ñu jël ko yóbbu ko hôpital saytu ko defal ko léppam ba yàlla def mu mën a wéraat génn dox ci dox ay activité am loolu la ñuy tàllal euh, loxo ñi nga xam ne ñëpp ñoo ñuy suivre ak fu mu mën a nekk ci àdduna bi rek dénk nañ leen kàddu googu nga xam ne moo ñu tax a yëkkati ko fii ndax tey ñëpp gis nañ ne suñu xol tooy na ci suñu mag ji nga xam ne tey jii tëdd na am tawat gi mu mel di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal wér te ñun wàccee solidarité danañ ko tàmbali def collecte waaye tamit ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo ñuy suivre yàgg ànd ak ñun ñoom aussi ñi ngi leen di woo ñu ànd ak ñun liggéey bi ba mu mën a wéraat dellu si ci ay mbokkam jërëjëf